travailler ci candidature Khalifa Sall il est en train de parler aux Sénégalais mais li ma la wax sànq mooy euh, li ko xañoon 2019 yéen ñenn ñi jàpp nañ ne loolu mënatul nekk obstacle expliquez-nous parce que certains ne comprennent toujours pas. mais y ko quoi à comprendre Mamadou Awa Mamadou Awa suspension wala élimination wala nga ñàkk sax ay droits civiques juge bi da ko prononcé expressément ñoom pour ñu mën a bloquer Khalifa Sall xam nañ ko loolu mënul nekk ils ont changé le code électoral. toog nañ toog dégg-dégg président de la lu mu toog mu ne euh, maa ngi wax ministre de la justice de la justice. mu proposé ma ay solution bi ñu ñëwee ministre assemblée ma laaj ministre de la justice yan proposition nga def président assemblée mu ne ma proposé naa ko ñaar proposé naa ko modification code électoral proposé naa ko amnistie. bi mu ñëwee plénière maître Oumar Youm président groupe parlementaire interpellé ko mu taxaw mu ne euh, waxtaan nañ ak président jàpp naa ni sax. yoon bi mu jël mooy yoonu amnistie ba tey ñoom ñooy wax ñun li ñu gëm. mais ça prend du temps et la présidentielle c'est juste dans un la ñuy def Modou Awa yàlla def na Khalifa Sall tey du ko am obsession mais doo ko bett doo ko wër noonu li ñu war ñu ngi koy def daañu dox daa daañu wax de deux choses l'une mm-hmm. ou nga jox ñu suñu ay droit ñu bokk parce que yow doo bokk et ñëpp dañu war a bokk ñu bokk Sonko bokk Karim bokk keneen ku bëgg bokk bokk ou bien joxoon suñu ay droit on a suffisamment l'intelligence et le background pour ce qui est important mooy créer les conditions du départ de Macky Sall. en quoi faisant créer les conditions. mais en semant la terreur le chaos. personne non personne non on n'est pas dans ça on n'a jamais été dans ça ku ñu xam-xam ne. du yéen taxawu nekk leen ci loolu. mais taxawu nekk ci loolu Pastef nekk ci loolu kenn nekk ci loolu maintenant comme comme on me dise que dans ce pays là on peut arriver dans un contexte qui n'est même pas encore préélectoral qu'on a déjà 163 détenus dans les prisons. Ça, c'est de l'intimidation. Ça, c'est de la tyrannie. Et il faut que Macky Sall sache que ça, ça ne passera pas. parce que doo jàpp ay doomu jàmbur tëj leen ba pare di xool loo leen di loo leen di tuumal. vous avez tous vu ce qui s'est la la la dernière fois. et aujourd'hui li gën a am solo mooy que bu Macky Sall jàppee ni que que que que que li am 2019 mooy amaat mu ngeen a bokk 2019 y a campagne. mais il y a pas eu élection. Ah, ba mu ko permettre avant ñëw ci tyrannie bi ngay wax ak euh, tension bi tout ça une dernière question rek par rapport ak taxawu Sénégal gis nañu que euh, week bi euh, pur def nañu meeting bu rëy une grande démonstration de force te ku xam pur xam ne seen leader ak yéen seen leader Khalifa Sall yàgg nañu. seeni waxtaan est-ce qu'on peut s'attendre à que ci biir Yewwi Askan Wi une grande force comme pur. def euh, taxawu Sénégal mu nekk seen seen candidat du bett kenn bu amoon naa. yaa may yaa may fekk de dama ne la dama ne la dinaa <laughs> euh, la Macky Sall du ñu war nomb du ñu nax mën nañu dàq ñu politique nee naa la le plus important aujourd'hui c'est que nous avons réussi à créer les conditions de son départ et incha allah en 2024 il partira parce que nag ñi bokk coalition Yewwi Askan Wi tous les deux ce sont des gens qui ont le sens de l'histoire et on l'a démontré lors des élections on l'a démontré lors des élections législatives ak schéma bu mën jël bu yaakaar ne affaire bi damier la da ngay éliminer diw dugal diw wala rocci diw génnee diw yaa ngi na sa bopp parce que ak lu mënti am les gens seront s'élever les gens seront s'organiser et les gens seront faire ce que les Sénégalais attendent et ce que l'histoire attend de nous. moi je vous dis que ces élections présidentielles là c'est un tournant pour l'histoire de ce pays maintenant nag avec un grand xalifa Sall n'a plus rien à démontrer tëj nañ ko kaso mun nañ ko génn na et il a travaillé à mettre en place cette coalition kay Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko impact bi mu dugal champ pour Sénégal wan na ni que c'est un c'est un grand monsieur y compris comme Gakou y compris comme Déthié Fall qui a refusé de suivre Idi dans cette aventure te dégg nga keroog Idi ni mu waxee ak président donc pour moi élection présidentielle ku nekk yaa ngi sa ay carte ñun ñu ngi suñu ay carte et eh, on les abattra au moment opportun quelle soit la configuration ah rapport de force la gis nañu eh, Ousmane Sonko les démonstrations yi muy def gis nañu aussi waa PUR ba ki démb mais yéen taxawu yéen a ngi wër di kii mais à quand ce grand meeting bi nga xam ne ku ko gis dina nekk ñii ils sont ils sont prêts hmm, ku ñu xam-xam ni que ñun on s'est on s'est créé les, les dynamiques une dynamique électorale elle se construit euh, bi ñuy def élection présidentielle en 2019 ñu éliminer Khalifa bi ñuy def seen schéma bi mu Abdallah di wax on n'aura pas plus de cinq candidats. Mm-hmm. mais ñoom seen calcul il pensait pas que Ousmane Sonko dina egg si troisième. il pensait pas que dañ ko xeeboon pas qu'il peut faire 17 pour cent. Mm-hmm. ma ni la ñoom si yàlla Ousmane Tanor ñoom si yàlla Moustapha Niasse dina ñun mais gars yi seen schéma yi ba lu ñu soo Macky Sall de Macky parce que du waaye comme président au contraire sax dañ ko xawoon sax xet seen relation ak moom mm-hmm. gis nga nguur yàlla moo koy joxe. te incha allah dina ko jox ñu ngi ñaan yàlla mu jox ko ki jig Sénégal mhm. ak ki mën a yokk Sénégal waaye nag ñun mën nañ politique xam nañ yoonu politique mën nañ course dynamique électorale moo tax xalifa Sall nekk actuellement di travailler sur des sur les viviers sur les bassins sur les appareils l'appel aux pastoralistes l'appel à la gauche l'appel aux Sénégalais la présence sur le terrain tout ça participe à créer une condition pour dire aux Sénégalais ñu ngi nappaate ñu ngi Dooraate ñu ngi GIGN ñu ngi des forces étrangères ñu ngi seen ay mercenaires tubaab mais ce qui est important mooy que Sénégalais yi gëm ni la décision finale vous appartient vous avez choisi le changement et incha on va changer quelque porte